Pero vai ligar lá que ah gars yi Aziz Tech Tank moo njëkk a jënd CD ah, ci sama loxo bi ah. waaw. I ah gars Eu sabe, isso aí, meu frère, delegado, mano. Via d'acheter 50 CD. Hein? Vraiment, merci, merci, merci à tout le monde. Maintenant, ah, délégué, merci beaucoup. Ndax yow xam nga dama laa bëgg merci beaucoup. waaw pour mon frère sëñ Assane loo nga xamante ni léegi léegi nii rek jënd na 100 vraiment am naa ci contentement bu weer sëñ Assane lu ndaam yow boo jënd sax ñu jox la waaye nag bi rafet na waaw góor. Oh nga def foo jógee nii. ñun ñëpp ay Sénégalais lañu. waaw doomu doomu aadama mu mën dimbali doomu aadama. waaw may jàppale ci sama liggéey. waaw ma ne si sa liggéey. waaw jox ma sama seede maa jënd si waa Pikine ak waa Guédiawaye. waaw c'est beau ça c'est super. c'est super ça c'est super. non non non